waaw ma ngir màggal di wax naan toujours may waxtaane ay xutbu xaws yu bari ak nit ñu bari fekk maa ngi waxtaane sëñ Touba damay wane ne loolu yëpp mu ngi ci moom dama ci diw mi may wax naa ko ci sëñ Touba Cheikh Ahmadou Badawi nii yonent bi euh, Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu ni mu ko bis boobu bisam boobu ñuy waxtaane woon naa ko bis Cheikh Ahmadou Badawi jagleel nañ ko moom it guddi juddoom googu guddi googu Cheikh Abdul Wahab Sha'rani moo ko nettali nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax dana fa ñëw ak saxaaba yi xulafaaw larbaay malaayka yi daañu teew wal yi fi nekk fépp ci kaw dund suuf si ba ci ñi laxañ dañuy raam di ñëw ndax bañ koo wuute moom Cheikh Abdul Wahab Sha'rani nee na benn yoon laa ko wuute woon am ñetteel xiyaas nañ ko ci Cheikh Ahmad Bamba radiallahu taala ndax Cheikh Ahmadul Badawi ku doy waar la limaale nañ ko ci arkaanul wilaayatul uzma gis nga fu ñu wax ne fardat xubbal xaw si la gis nga waaye sëñ Tuba wane na bu leer na na xubbal xaw si la xubbal xaw si la gannaaw lépp luy jóge ci sa borom jëm ci mbindeef ci loxoom lay jaar te suñu borom fonk la te suñu borom ci boppam moo fonk léppam ku suñu borom fonk léppam war ngaa fonk léppam ndax nga bañ a alku bañ a lor te nga jëriñu kon bis bi ñu ko ko tuddee lu ñu séenu ci guddi si Ahmadu Bari boobu nga xam ne rijaalulaah yépp dañuy teew ba si ñuy raam sax mënuñoo dox di teew ba wàllu yu mag yi teew lu di leen ko yeddee séenu naa ko si bisu sëñ Tuubaa bi radiyallaahu taala yaakaar naa ne kon nit ko am ngërëmal yàlla bu mu wóor képp bépp borom xol bu leer boo amee ngërëmal am nga ngërëmal yàlla ci ngërëmal yàlla lu jafe jafe jafe la donc waa ju baax nag li lay wan ne amul morom yonent yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam bis bi ko suñ borom ne waaw yow xam nga ne li ñuy wax xabd ak bast wala al haybatu wa muns ci ñu gën a kawe sax dafay am ci nit yàlla ñi jamono yoo xam ne suñ boroom day waxtaan ak ñoom ca na mu yelle ca màggam ga mel ne ku toog ak sa xarit li tubaab wax au coin de l'âtre toog ci bëtu taal bi lu ñuy seen xel rek ngeen wax ngir li wax familiarité ngeen euh, miinante daal ku ci nekk miinante sa morom nga mun ko toogaayam neex la ngay wax sa balaxal madda Musa alayhi salaatu wasalaam suñu borom nag waaw yow loolu ma sa defal ak li ma la defal lépp mu ne ko li ma julli li ma wor li ma sa kër mu ne ko loolu lépp sa bopp ko def dama lay fay man defaloo ma dara loo ma defal lu mu tudd rek mu ne ko sa bopp ko mu ne ko waaw man kon lu ma la mën a defal mu ne ko nga fekk waa joo xam ne gën nga ni fonk naa ko wala bëgg naa ko nga fonk na ma ko wala nga bëgg na ma ko loolu nga mën a defee kon ikut képp koo xam ne yàlla ak yonent beeg sëñ Touba tax ngay def sa pay yàlla rek ko xam maa ngi ma laaj nag mun lay fayeek muy tolloo yooyu sama yoon ni ko ci xaw ma ko asalaamaaleykum seen bi di Diawfal Fara li ko tax a jóg mooy xamle sëriñ bi xamle it njàngaleem sëriñ bi bu ngeen bëggee abonné ci Fara dem leen YouTube ngeen bind Diawfal Fara bu ko defee ngeen daal di bës cloche bi Diawfal Fara ñooy ñaanal Serigne Mountakha Mbacké Bachirou mu yàgg fii loolu te ànd